ñu fee dalal suñu gan Alioune Gueye from Guédiawaye nekk ndaanaan bu mag a mag a mag ça fait plaisir ñu dalal la tey ci plateau Wanema euh, nga nekk jeune talent boo xam ni tey euh, Guédiawaye ñëpp reconnaître nañ ni ndaanaan nga tubaarkàlla ngay waaj nag bis bu rëy rëy boo xam ni euh, defe naa yaa ngi koy def sur lendemain tabaski waaw ah, lendemain tabaski Guédiawaye waa Guédiawaye gi yëpp itam ñu ngi leen ci woo xanaa laataa ñuy xuus ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi tagg leen ñun mbay mooy sunu maam kañu daan woowe xalifa be ñun sunu maam ja dem nañu ndeysaan gone yi juddu xamu ñun mbay penaan mbay mooy seen maam kañu daan woowe xalifa be sunu maam ja dem nañu moom mi waxoon suma rusul woon sama baay kuma woo si foto ma wuyu la baayu Sëriñ Mansoor borom daara jee maam benna Sëriñ Babacar boo ko masaana présenté say àndandoo du leen fàtte saa yu leen gisee leen laajte xalifa moo mata doy la xalifa moo mata ànda sëriñ Babacar Si Malick baayu sëriñ Mansoor Si moom mi ne woon suma rusu woon sama baay ku ma woowoo si foto ma wuyu la borom sakar bu jëkk bi kon ñun ñooy tijaan ana tijaan yi alim bi wayaleen Abdallah ñi ñoo bëgg Cheikh yéenay tijaan waa kër Aziz Ndiaye Baye Ala Ndiaye Masata Soro Ale yéenay tijaan wax leen mustarshidin wa mustarshidaat kay ma way seen maam jësëri ku ànd ak ku ma àndal lu la neex laaj ku bëgg Sëriñ Babacar xam nga kii bi mu nii rek eh, ajarat dama booy eh, tabaarakàlla da ngay xam ni ndaanaan la eh, ku am la macha allah tabaarakàlla ni nga ubbee nii rek annoncé nga couleur émission bi tey macha allah ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak téléspectateurs yi ak waa Géejawaay waaw man Alioune hmm. doomu Sénégal doomu Géejawaay doomu hmm. banlieue hmm. maa ngi leen di nuyu ah di ko njëkkee nag si waa waay ndax doomu géeje waay laa di nuyu ñëpp ah su ma limee damay jum sunu yaay sunu papa yi kilifa diine yi kilifa aada yi man Alioune Guèye seen doom maa ngi leen di nuyu di leen wax ni nag maa ngi waajal événement bu rëy. waaw sur lendemain tabaski incha allah. Mm-hmm. bu mag. Mm-hmm. waaw maa ngi ñëpp nag Pikine parcelle su ma limee rek damay juum. voilà ndax ñun ay doomu Sénégal lañ. Mm-hmm. voilà nuyu bu baax di leen jaajëfal. macha allah mais nag euh, géejawaay foofu ak aar bi affaire moom xaw na seere foofu de. waaw waaw euh, sant yàlla noo koy dundee. géejawaay ngi di neex rek. waaw ku xam Aline Gueye xam ni waa géejawaay yëpp dañoo nekk si ginnaaw. dëgg la waxuma géejawaay sax mais Sénégal. fu ma tëgg rek. xale yi dañ may wuy si macha allah. muy soirée yi muy xawaare yi muy mariage mm. di ko sante yàlla nag. di sant ah, sama papa xawaare yi moom ak ak mariage man maay doomu Souleymane ku ma nga. ndeysaan Souleymane hmm. kii ndaanaan la waay. di rakki Daouda Gueye Daouda Gueye ku mu joué wul si si waykat yi. Mhm. doo way doo way dëgg la ma war. mais yow ba yaa da ngay joué wala instrument en maa baax kay maa ngi joué guitare. Hmm. ma laal clavier. Hmm. damaa judd si famille boo xam ne musique la ñuy dund. ndeysaan ndeysaan sëy Mm. sëy bu ko defee mën nga kii noonu tuuti rek euh, waaw kay euh, yaa ngi ñuy yaa ngi ñuy baaree waaye nag euh, gis ngeen ki nga xam ne ni moom mooy Alioune tey dañu am mbégte dalal ko fii ndax nag wane ma dafa wuyu turam nee naa la kuy ndaanaan ci réew mi mbaa nga am talent mën loolu li ngay def tabaarakàlla dinañu la indi fii mais Alioune man xam nga lan moo ma yëngal mm. saawkat bi li mu aw sama rakk la ñoo bokk ndey yéen a bokk ndey ak baay mooy ndey gay ndey gay c'est la famille sama rakk mais la mu octave ci suuf loolu mën na maa gaañ ndeysaan kee taxaw mooy kan moom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 suñu suñu xel yëpp dem na ci Papa Thione ah suñu baay bi na suuf